dem laaj Malick Thiandoum ndax Lamine Samba dafa soxor dem leen laaj Birane ndax Lamine Samba dafa soxor demleen laaj Bouba ndax Lamine Samba dafa soxor dem leen laaj sax suñu kilifa ñun ñëpp Youssou Ndour ndax Lamine Samba dafa soxor dañ lay wax déedéet borom xol bu yaatu la saabu du fóot boppam nit ku baax la nit ku yaatu la nit ku xam fu jëm la nit ku bëgg nit la lu ma am rek nit ñi laa koy jox lu ma ñàkkit nit ñi la waaye ñu réeral ma jaxase ma ak askan wi complètement complètement jaxase ma ak askan wi ba askan wi ñenn ñi sax bugguñu ma xool ak bët ñenn ñi diaboliser ma dama dem siyaare yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi may dem di siyaare yonent bi sallallahu taala alayhi wa ma ànd ak ay nit damay tudd turam Mohamed Bilal actuellement c'est le maire de Kër Massar Mohamed Bilal maa ngi moom ñoo àndoon siyaare yonent bi bi ñuy dem mu gis ma aéroport rek yaa waa ji kii bi nee na bii laa jàkkaar loolu ay man fu ma jëm Lamine Samba laay bokkal dem siyaare yonent bi problème yaa ngay démarrer nag Lamine Samba laay dem bokkal waa ji xoolal aji màkkaam yàqu yàlla di dogal di dogal di dogal di dogal di dogal ñu dem ba bokk benn néeg mu ne du bokk ak ma néeg parce que parce que parce que mais bi ñu demee ba loolu dañoo dem ba ci kaabatu rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam mu jàpp sama tànk daal ne woo leen nit ñi ñoo mën Lamine Samba laay baalu ak xaw ma woon ndax nii nga mel ndax nit ñi dañ la réeral ci dañ la réeral loolu nag laa bëgg mu dakk à partir de tey à partir de tey sénégalais yi xam ni man seen doom laa à partir de tey xam sénégalais xam ni man seen lépp laa seen mbokk laa seen xarit laa je ne suis pas quelqu'un de mauvais bonuma maa koy waxal sama bopp ndax loo xam xam xam sàmba sàmba gën laa xam boppam waaye nag ku am fulla laa ku bëgg fulla ku bëgg fulla laa ku bëgg liggéey laa ku bëgg liggéey laa man maa liggéey presque ëpp na vingt ans musuma xam demande d'explication nu mu mel boo waree liggéey liggéeyuloo nga war a dem demuloo non non man bokkuma ci loolu xaw ma demande d'explication nu mu mel chaque jour maa ngi liggéey chaque jour maa ngi liggéey guddi ak bëccëg suba ak ngoon ak à deux pas de ma retraite presque su ma liggéeyee waatee presque dix ans presque ma retraite kon presque jeex na waa lan moo fi jor macc xaw ma lan ñor bañ koy macc ak lan moo fi jar xëccoo nga xamante ñoom du Mbay ñoom am Pape Alioune ñoom boo yooyu ñi ngi ñëw dal ñun suñu kaw comme ñun ñu ngi dalee woon ci kaw nii parce que ndaanaan bu nekk xale moo ko fii folle comme ni mbër yu mag yi folle mbër bu xale yi folle mbëru mag yi ma nekk di xëccoo ko di sii sa di lii dem leen ngeen laaj l'un de mes meilleurs l'un de mes meilleurs compagnons, l'un de mes meilleurs confidents, c'est Malik Thiandoum, c'est Malik encore c'est Malik Thiandoum sama xarit la sama mbokk la sama doomu ndey la li may waxanteeg moom duma ma ko waxanteeg élage bi ma bokkal nday ak baay li may waxanteeg moom du ma ko wax ak ndikki bi ma bokkal ndey ko yéene yéene ma ko kenn Malik Thiandoum sama doomu ndey la sama xarit la Malick Thiandoum suma xarit la ma leeralaat leen ko Malick Thiandoum semoo mon ami maa ngi moom ñoo bokk ndey ak baay succès am sama succès la et puis Malick Thiandoum du sama ennemi Malick Thiandoum sama sama partenaire la suma xarit la succès am sama succès ñu bokk benn team bokk benn entreprise lan laa koy iñaane iñaan daa fanq muur yàllaay maye bu yàlla nee waaw nga ne déedéet billahi yaay sonn te bu ma naree iñaane nit yàlla na ma yàlla rey yàlla yàlla jël sama bakkan bi bu ma naree iñaane nit maa ngi koy wàcc barke safar gi barke borom Touba su ma naree iñaane nit yàlla na ma yàlla rey yàlla na ma yàlla rey yàlla na ma yàlla rey yàlla na ma yàlla rey yàlla na ma yàlla rey su ma naree soxore nit wala ma iñaane nit foofu mu toog na fa toog na continuer li muy def sénégalais yi bëgg nañ ko c'est un professionnel mën na li muy def alaaji Cerno Njaay mën li muy def Mamadou Mbay Garmi mën li muy def sama dijaay Abdou Aziz Mbay mën li muy def da ngeen maa mës a dégg benn dualité wala Lamine Samba ngi siir booy siis ci alalu jàmbur pourquoi mooy siis ci alalu jàmbur wala soxor ci alalu jàmbur lu tax su ngeen gisee may waxee nii c'est parce que damaa dégg commentaire yi daa soxore diw daa pour lan soxore it waay pour lan daray kañaan nekkul ci man daray soxor nekkul ci man barke alxuraanu karim barke borom Touba barke Serigne lu Mbacke amul daray soxor lu nekk ci man lu waaye am yéene naa la ko te lu ma am mën naa ko bokk ak yow kon wax boobu nañ ko yëkkati ñu teg ko fële mu ñëwaat tuuti nag ci sama avenir par rapport ak Futurs Médias nee naa leen damaa toog at frigidaire wuñ ma de dañ ma congélateur frigidaire frigidaire daal tuuti dañ ma foofu ñuy dugal jën yi nu mu tudd central yi a central ak da <laughs> njëge du di li dangereux <laughs> central yi lañ ma dugal maanaam central yooyu aw xam ne mën nga mu def cinquante ans <laughs> après boo koy tàgg sax da koy xooj ci ndox cent cinquante huit te man defuma waxuma parlant de Futurs Médias bërki démb laa fa yóbbu ay million yu bari wax naa ko dama koy waxaat mbokk yi maa ngi nuyuwaat ñëpp pour dellusiwaat tuuti ci live bi gis naa ni nit ñaa ngi commentaire nit ñaa ngi wax ma delluwaat tuuti rek du yàgg tuuti rek ci début bi dellusi naa sama début Oxygène FM 103.4 dellusi naa Walfadjri ba ñëw fi nga xamante ni moom mooy Futurs Médias ah su ngeen gisee lu tax ma ne a ah, man de Lamine Samba télé yëpp ma soxla waaw je l'admets télé yëpp ma soxla xam nga lu tax man toll naa foo xam ne apporteur d'affaires laa te mën naa yëkkati sama loxo ne Futurs Médias bu ñu bëggoon tey sama contrant nañ ko dagg ma nekk apporteur d'affaires sponsor bu ma indi ñu jox ma ko je serai multimilliardaire multi je bi bien mes mots multimilliardaire waaw ma millionnaire bi multimilliardaire nañ dagg sama contrat boobu ñuy wax yi ñu def ko prestataire ne ma soo indee sponsor am nga je serai multimilliardaire ñu def ma ne ma boo boo indee million am nga cent mille léegi ma taxawal fa xaalis bu dul jeex parce que entreprise bi man maa leen di dem démarché man maay dem jëli chèque yi man maa koy dem yóbbu encore une fois de plus bu nekkoon xaalis kese kese kese kese kese mooy tax maa ngi des Futurs Médias ba tey wóor na yàlla ak yonent bi wóor na Serigne Mbamba Mbàkke mi may yaakaar lu dul moom kon dem naa bu yàgg kon intérêt bàyyi ma fa bëgg moo ma fa bàyyi musuñu ma xas musuñu ma dóor musuñu ma saal mais ñoom seen nii moo si nii dafa gaaw noppi seen noppi dafa garaaw te man mbokk yi dama leen koy wax di leen ko waxaat du fi toog di noppi sama gémmiñ di xasaw wala may toog di noppi di rafle du ma ko def bi ma juddoo ba léegi wax rek laa xam du ma mécanicien du ma menuisier du ma maçon du ma carreleur du ma technicien du ma caméraman naanu ma man soxoruma man at ma ma judd sax ku iñaan judduwu ca waaye dafa am lenn loo xamante ni suñu deret la nekk bu ñu sibooree dee bu ñu fenee dee bu ñu naaféqee dee bu ñu maree ginnaaw dee xamuñu ko mënuñu ko te duñ ko def bu fekkee ni mar ginnaaw rek ak siboor rek mooy tax ma am non je crois que du ma am ndax mënu ko biram pend wër gërëm laa ci wuri ngara liggéey rek laa xam liggéey dong laa xam Kanta nag moo toog ci télé bi naan fii lay retraité fii lay diwee fii lay diwee maa ko wax kan mooy toog ci groupe de presse di fa liggéey groupe de presse bi yor sa teraanga nga toog naan beneen groupe moo ko yor beneen groupe laa bëgg retraité beneen groupe laa bëgg loolu amul fenn fi nga nekk foofu ngay valorisé te ba léegi maa ngi naan Futurs Médias la tàngee Futurs Médias lay xoyam-xoyame fépp dàquñu ma du dem ba léegi fa ma nekkoon foofu laa fa nekkoon tax nañu saaga nañ ma façon bu nekk dégg naa ko te ñooñu nooñu seen jëmmi bopp dañ leen a réeral ci man dañ leen a réeral ci man ngeen baal ma dinaa jël ay quelques appels Mbaye Diagne maa ngi nii live en direct ci TikTok bi maa ngi nii en direct live ci TikTok bi. waaw waaw léegi léegi daan sam boo paree rek woo ma dégg waaw Samba laaj waaw d' waaw mu waaw ndeysaan. gis nga de xam nga gis nga àdduna ni ñooy permettre xam nga lii yu si bëri nga koy nga koy nga koy liwaat yaa ngi dégg lu nekk ma dégg ko ci lu nekk ñu wax ma ko ci. may wax di ma jugé wallaahi wallaahi xamuñu ma wallaahi barke alxuraan xamuñu ma lépp lu ma yéene nit dama koy waxaat yàlla je ne suis pas pour victimiser wu non non non non non wala kaay leen abonné ma non non non non parce que nag chaîne bii nga xamante ne ni mooy songante TV mbokk yi bu nekkee ni cent pour cent la damay jàpp ni quatre-vingt-quinze virgule cinq pour cent yi askan wi ñoo ko moom parce que seeni jafe-jafe rek laa fay wax du ngeen fa dégg mukk may wax man sama ay problème mu personnel non non non pour régler mon